asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu daayira muxadamatul xidma bu grande mosquée bu Touba di waajal koor gi bu baax a baax ci conférence yu am solo yi nga xam ni moom lay amal bés bu yàlla sàkk ci biir weeru koor gi ci jumaay Touba ji conférence yooyu le ñu séddale ko ci ñetti pàcc bu njëkk bi mu jëm ci ay conférence maanaam jotaay bi yépp waxtaan lay doon ñaareel bi conférence bi durus lay doon maanaam jàngale ñetteel bi conférence bi fatwa lay doon muy ñetti ponk yi nga xam ne moom lañ séddalee conférence yi nga xam ne moom la ñuy amal ci jumaa jumaay Tuubaa ji ci biir weeru koor gi daayira muxaddamatul xidma ubbi leen groupe whatsapp boo xam ni da ciy sàkku seen xalaat seen gis-gis wala ban ponk ngeen tànn wala moo leen gën jublu ci ñetti fànn yi nga xam ne moom lañ séddalee waxtaani koor gi képp ku ci bëgg a joxe sa xalaat wala contribution lii mooy numéro whatsapp bi 78 175 06 42 78 175 06 42 daayira muxaddamatul xidma ñoo leen di ñaanal kooru jàmm